dañuy liggéey ak administration bi ñu jox leen matériel bi ñu am ak lu ñu keneen jox ñu dajale ko ñu dem ci kër yi kër bu nekk ñu am fa benn sentinelle boo xam ne nii moom moom moom la ñuy féetal mu ñu veyel ci ci mesure barrière muy sol masque bi muy raxasu ak saabu muy def distanciation mais bu ñu ko amee ci kër bu nekk rek defe naa ni ba ñëpp respecté ko li ñu xam bëgg nañ ko nañ ko mën a am parce que gis nañ ni même ñiy génn tey jii di football yi ñii di daje ñëpp koo ci gis même ji ñep ci kër lañ jógee kon ñu ni combat bi bu ko jigen ñu porter jeunes yi ak muy bàjjenu gox yi également dugg ci dégle quartier yi ñëpp am la même conscience que ñep dañu wara def li bu ci ñëpp àndee dañ na sotti comité bobu nak nga xam comité d'engagement communautaire bu liberté 2 mom la ñu installé tey suba war nañ installé bu liberté 1 semaine bi ci top war nañ war nañ installer bu liberté 3 liberté 4 liberté 5 ba liberté 6 ak liberté 6 extension nous ko avec commune district bi ñuy dem ak ñeu ñuy faire nit ñi ci fièvre bi di xamal nan lañ wara parce que stigmatiser nit ki parce que dafa mais li am solo moy bu fièvre amé nga xam nan nga wara taxawé ba sa nit bu ko ñu ñun comité chaque vendredi am nañ un comité contre la pandémie puis à la préfecture son bureau bu ñu situation kaay yëpp ñu génne ko mais boo ko xoolee seeram dafay daw. bon ñetti téeméeri cas mën nañ am nañ fii ci commune si Sicap ak ñeent te loolu mi ko arrêté woon à la date du yooyu nag liñ ci gën a mooy nit ñi xam ni mbir mi am na feebar baa ngi fi que nañ jël seen i disposition mais na borom kër yi wax ak seen doom yi ku nekk nangoo def jeunesse bi surtout ñu mën a changer comportement.

de même ko ñoom pour protéger mag ñooñu parce que lii yaakaar naa ni sa wërgu yaramu bopp kenn warula ko gën a bëgg rawatina nag ci ñi nga xamante ne si ñoo la tette jàppale la ba nga toll fii nga toll donc ñoom aussi tey li ñu leen mën a jàppale mooy jàpp mooy aar leen sàmm leen